gën cee euh, développé. man mm-hmm. mm-hmm. nga toog di xaar ñu tëggal la procès boo xam ne nii état bi lépp gee galgal day diri procès ba heure bu ko neex ba élection yi passé doon aw euh, ñoom ah, révision la bëgg mais nañ ci dox nañ dugal seen demande ñu xool man de toute façon xaw ma li fi jëlee Karim Meïssa Wade toog nañu rek ñu ne Karim Meïssa Wade gàddaay na kon lu ko fiy andi ñun suñu sama yoon nekku si bu ñëwee baax na bu ñëwul baax na la ko fi yóbbu na ko fa jéem a andiwaat. Sénégal am jàmm. na ñëw Sénégalais la Sénégalais la. ñëwal bu fekkee da bëgg bokkaay élection ñaari buntu moo fi am. jéggalu muy amnistie wala ñu tëggaat procès bi procès bi mën nañ ko tëggaat mu jël temps bu la arrangé ay ca wala nga bind demande nga jéggalu ñu jéggal la nga ñëw bokk si élection yi boobaa sa der mën na yàqu parce que dañ naan yow mii di laaj lu ne weng tey nga bëgg ñu jox la réew mi da ngay defaat lu ne wengaat donc ñaari buntu yooyu donc moo fi am wala mu def force forcing ñëw ñetteel bi ñu jëlaat ko téye ñetti ñetti buntu yooyu la tànn sa bu la neex la rek li la fi yóbbu xamuñu ko li la gàddaayloo xamuñu ko booy ñëwaat tamit ñëwal rek yàlla baax na li ci kanam raw li fii la Sénégal moom il ne faut jamais dire jamais nuyu nañu suñu mbokk yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, gi bu euh, jotee gargot yeex sama mbokki mool yeex ñi nga xam ne ñoo nekk biir géej euh, transport en commun yi ñoom ñëpp waxtu wi nag dañu ko tàmm ngir xam li yéene kaay yi xëy fësal may remercier waa ONAS il paraît defaral nañ côté cimetière yi ba nga xam ne ndox mi jaaratu fa loolu lu am solo la parce que loolu la ñuy teew ngeen di dégg suñu jàmbat di ko saafara jamono jooju nag xaar yàlla tamit ndox maa ngay bal ba léegi taxaw leen si rek yéen waa ONAS liggéey bi am na solo léegi doo wax waa marché ba lay waa marché il paraît da ngeen yóbbante Pape Mahanta Mbuub si man nee marché ba daa salté si maire boo xam ne environnementaliste la man lool il faut ma dem fa teg fa sama bët euh, donc dinaa fa ñëw waa marché central bu Tëngéej xaw ma marché ba daa tilim xaw ma tilimul yóbbante la environnementaliste la donc moom set ak sell ak tali bu féex yëfam la war a doon normalement donc yóbbante la bu nga xam ne yéen waa marché central bu tënk yéen ko yóbbante sama benn naataango ngeen ne ko demal waxal maam benn marché daa salté dinaa si ñëwaat xool parce que il faut sama bët may ma waa tënk xam nga dañoo xaw kii da wax fii ñu ne la li nga wax bara mus <laughs> nañ lay dëj sa ànda yéen a kaay groupe des dafa ñëw ci lañ doon waxtaanee sànq maanaam tëggaatum euh, procès bu euh, kii nga xam ne moo di Karim Meïssa Wade en tout cas ñoom Mame Diarra Fam gis nañ seen déclaration yi seen bëgg-bëgg moo di ñu tëggaat procès bi waaye bëgguñu ak jéggal yalwaanuñu jéggal bëgguñu jéggal bëgguñu ku leen ko sarax donc Karim Meïssa Wade nag fu mu nekk nii bu fekkee amnistie bi la maanaam dafa bëgg ko jéggal il faut nga bind kayit nga wax ne dama bëgg ngeen jéggal ma ci li nga xam ne moom laa def te jéggal gi nag mooy def-def bi def-def bi dañ lay jéggal donc nag euh, Karim Meïssa Wade moom la ko Ismaïla Madior Fall tontu Ismaïla Madior Fall xam ne ne kon bu dee nag euh, demande amnistie faw nga bind euh, bu dee nag demande bu ñu ubbiwaat procès bi tëggaat ko moom ministre bi jotaguñu ba fii benn demande bu nga xam ne ni sàkku nañ ko jóge na ci waa parti démocratique sénégale kon nag leer na ñoom dañuy topp rajo yi peut-être ak ak yi di wax ne dañu bëgg ñu tëgg procès bi tëgg procès bi tëgg procès bi waaye ba fii nag nee nañu jotaguñu benn demande bu nga xam ne nii dëggal na seen sàkkuteef googee dinañ ci ñëwaat ci biir yéene kaay ndax am na fu nga xam ne nii Doudou Wade mu ngi ciy wax président Doudou Wade di leen wax ne kon demande boobee la ñu bëgg ñu jàll ba tey ci yéene kaay groupe euh, euh, des média dafa ñëw ci politique bi nga xam ne moom moo am euh, ci troisième candidature bu président Macky Sall coow lu bari na ci lool waaye nag professeur Babacar Gueye ak nag Zouak Zouak ni ñu koy liiree Euh, euh, euh, Birame Touré. Zouanke Zouanke ah. Zouanke del yàlla wax de man sama français foo de Zouanke. Zouanke. ah kon boog Zouanke. professeur <laughs> Babacar Gueye ak Zouanke ñoom ci boppam nee nañ nekkuñu woon ay juges yu xamoon nañu ko juges yu ay waxoon nañu ko lañ ay professeurs yu. waxoon nañu ko ndax waxoon nañu dànxaaf woon nañu boobu lii lañ doon seen muy ñëw euh, ministre Ismaïla Madior Fall ba tey euh, ci euh, Foseka bi xam ngeen seetaan ngeen kan direct ci Sen TV ñu gis ay man façon fecc bu nekk gis naa ko ci Foseka bi c'était en direct ci Sen TV ah Foseka partenariat am amadu Diagne ax nag waa Sen TV Mantulaay dafay fecc fecc fecc ba fu mu nekk ay rappel moo lay doxee ah Mantulaay ci bundoy dafa simmi daal lii simmi daal lii teg ne le Assane Ndiaye moom la la fecc ba ay cartouche am jeex Wally bi ay rappel moi rek la doon demee euh, ci fecc mi Cheikh Sarr waxi noppi ñu gis Alima Ndion ca wet ga léegi yow euh, madame Sarr yow léegi ban nga maye yow non man dama doon dama doon kii rek dama doon parfois ma jóg rek xam nga xaw a nii nag toogaat xam nga damaa jëm mag te sama yar te sama yaram neexul mm-hmm. ñu jàll ci la nga xam ne moo xew euh, temps yi nag jumaa yi war nañoo wax si ñoom suñu ah, imaam ya suñu jiit yi war nañoo wax si ñoom la xew sa njëyeen gée sa Thiès ñu assassiné fa rey fa si anam gu ñaaw ab imam tey ay imam bu euh, jumaa bu Karak amitié 3 coow li bari moo fa am assemblée général comité ba ñu ne mukk euh, imam euh, la Babacar Babacar nan Babacar Ndiaye xaw ma imam ba ci bo en tout cas xaaral ma YouTube def naa Babacar Ndiaye la suma juumul imam Babacar Ndiaye doy na waar mais mais mais dafa jéggi dayoo lii faw ñu wax si parce que tamit imam yi seen dara nga yàqu imam Khalifa Ndiaye imam Khalifa Ndiaye ñu ne jegeñaale Barthélémy Dias la en tout cas nee nañ du dugg ci comité bi bu fekkee dafa dugg ñu leen li see laal seen i sijaada dindi seen i haut-parleur tëj jumaa ji war leen ginnaaw mais yamuñu sax mais mbir mbiri xeex la mujj sànninte ay xeex ci biir néegu yàlla bii sànninte ay ay chaise yu xooy lu nekk ñu ne mekku ci biir jumaa ji li ñaaw na Birahim jot nañu wax ci nag imaam yi ulema yi jot nañ war nañ dëpp seen biir de. imaam moom xanaa daa am la ca. dama ragal dafa am mbaxut bu si laaxut. mais xanaa man de imaam moom xanaa ay. en tout jiite jàkka rek. Ah? Ah? jiite juma wala jiite jàkka. waaw ñoo cee xeex. waaw julli euh, ñu ne comité de gestion beeg yu mel noonu waaye dañ ci tuumaal tamit mbirum détourné keesu jàkka ji loolu nag du fi gulee. ci réew mais xam nga am na benn benn propos moo nekk forcément je veux dire le le président du comité de gestion aussi. non assemblée générale dañuy voté. waaw c'est pas forcé. xanaa c'est pas forcé mais coolu coolu mbirum koppar la. mbirum ah. koppar ba ci néegu yàlla tamit ah. allahu akbar rabbana walakal hamdu loolu diggante ñaar ñooñu kese war nañ ko xëccoo kese. non te imam mais xam nga jumaa yi sax ak jàkka yi day bëri imam sax. waxante dëgg waaw. ay adjoint. mais bu imam demee tamit ba dëng aussi loolu problème la. mais ñoom ñi fal ku dëng ki lu tax ñu bàyyi fi ñu jub ñu jël ku dëng. ah que boo ah, koy. yow da da ngay nekk si quartier nekk nga retraité am nga xaalis rek. samp sa ndënd da damay jiite jumaa. man te sa àlluwa diis. man ñaari saar pour lan. ñu waxante dëgg rek. man ñaari yaa ngi de. Fatick awum saar te yow sa julli du teewlu amu jëm. ah xam nga waaye tamit jël mën benn xista mooy fekk yow xoolal toj nga boîte de nuit yi toj nga sortie yi toj nga bëgg ñëw toj eh, jumaa ji mënul nekk <laughs> foofu laa doon ma nekk da ngay toj mënoo toj <laughs> mënoo toj soirée si di jóg ba pare bëgg ñëw <laughs> fajar nga ñëw ne da ngay toj loolu ak jaamu yàlla ça fait deux ça fait moo tax mënuñoo ànd ah, kay yey nga sa bopp toj fu ne laa la wax kay loolu du ci dara. diine jamono sa alluwa dina ak jamono la. mais adduna ak bànneexu. da ngay toog diine toog jamono adduna ak bànneexu ñoo ànd. bi da waxtoom. <laughs> dañ waxante dëgg Malick Gakou nee na dina porter plainte euh, Gaston Mbengue ndax daf ko wax ne moom Macky Sall lay liggéeyal. toll ci def ko weesu ko ba. waaye weesu ko sa waxtu ba <laughs> moo taxit boo ko bawul rek ñu fàttali ne la eh wàccul fi nga taxaw foofu du sa place dema ci sàppe yi ci ginnaaw. foofu du sa place <laughs> nañ waxante dëgg euh, vox populi dafa ñëw nag ci euh, charia ñu ngi koy pratiquer fee sa euh, Touba Guédé xam na nii diine la ñuy doxal diine la ñuy doxal mu am ci ñaar ab benn soxna la ba lool 17 octobre la fàtte xaju fi dañ ko caw téeméeri yet ndax dafa njaaloo benn soxna loolu mi ngi am ba léegi dafa njaaloo ñu caw ko si dañ lay caw foog nga xam ne nit ñi dañuy toog. Touba Guédé mooy fan. Touba Guédé sa Touba lañ wax de Touba Guédé ah Touba Guédé Touba Guédé fu mu féetee kii wér ma ci kii bi. Touba am am na ñaari góor yu nga xam ne tamit loolu le 22 la dañ leen caw ñoom it ndax dañoo njaaloo ñoom mooy téeméeri at yi nga xam ne dañ la koy dóor ci penc bi boo njaaloo waaw mooy mu ngi nii vidéo baa ngi dañ ko flouté donc benn soxna la ak ñaari góor yu nga xam ne ni caw nañu leen ndax nag euh, ci boppam dañ doon jaaloo téeméer yet en public xam naa moom fii bu ñu ko doon def ci doon dafa xam naa nag caw il ñu fay ko parce que mën ta caw bi day dee te chaque jour nga caw téeméer <laughs> réew mi de buñ doon coow. mooy yuuxu dina jóg pour ñu dagg sa benn nopp wala ñu dagg bii dagg lenn ci yow quoi am na ñoo xam ne jeex nañ bi am ñoo xam ne seen ñu dara mais xam nga waay ah 58 jot na am na ñoo xam ne fekkoon saa ñu dagg dara am na ñoo xam ne xool bii di la ñu <laughs> seen takk der rek ngay gis muy dem muy tax muy moom seen tante moom dina romb continent africain ñu jëkk Vox Populi nee na soo mettiwul gerte caaf doo amati de ndax nag wër na gerte gi seer na Vox Populi foofu la génne gerte gi dafa cher Maître Abdoulaye Tine na candidature am comme bokk na ci euh, liste bi le journal euh, dafa ñëw ci urgence bi nga xam ne yaakaar naa ne moom moo wër ndoom président Macky Sall bu doon mbër fu mu nekk nii li ko wër ndoom moo bari ndax euh, jàmbatu askan wi urgence sociale rébellion bi ci biir Benno Bokk Yaakaar troisième mandat bi ñi dañu ko bëgg ñiy bañ ak ñi nga xam ne dañu bëgg ndombal tànk front anti troisième a kaay bi nga xam ne waa Benno Bokk ak Amina Touré fu mu nekk nii nag nee nañu mbaaru daa jàkk ndax faw mu am renfort nga xam ne nii euh, dafay euh, daf koy taxaw ay allié lay wut Sud Quotidien dafa ñëw ci inscription yi nga xam ne yaakaar naa ne bañ bi metti la si waajur yi inscription yi fourniture yu cher yi bañ bi metti la waa euh, COSYDEP ñoom ñoo ci dikk bu di Cheikh Mbaw yéenekaay bi dikk na ci ñu jàll ci Euh, forum euh, de Dakar moom la ñu euh, amal tey jii naan ko wax ko gis ngeen ko fi sànq fa la jëm fii ci diwaanu Dakar la ñu war a waxtaanee nag wàllum terrorisme yéenekaay bii dikk na ci 380 milliards pour le contrôle et le maintien de l'ordre 277 milliards la ñu génne ngir nag maanaam gën a dooleel suñu gendarmerie bi tàkk der yi looy ree ñoo ngi caw gi dañ may yi moo ñoo xam ne moom buñ leen doon tantal <laughs> l'ocritis ocritis ah Yacine nga ne ocritis ocritis <laughs> dañu demante la benn labo bu nga xam ne nii dañ fi doon defar drogue xeeti sinébar bu drogue dure bi waaye it blanchiment capitaux ocritis Karim euh, Meïssa Wade euh, fu mu nekk nii révision projet bi waa parti démocratique sénégalais nee nañu moom la ñu bëgg waaye wootewu ñu benn yoon jéggalu euh, kon nag na leer yéenekaay bi dikk na ci ñu jàll ci bés yéenekaay référendum ci biir bennoo waaw ñii nga xam ne ñoo ànd troisième mandat bi ñeneen ñi ne déet ñoom ci troisième euh, candidature bi d' accord nañu en tout cas coow lu bari la euh, ci biir euh, benn Bokk Yaakaar le vrai journal foofu la génnee 24 heures dafa ñëw ci pourquoi Mbackiyou Faye réclame 9 virgule 280 milliards waa Free loolu yëkk na si yéen waa Géejawaay Mame jaaw a tontu na leen si coow suuf gi Mamadou Fofana yàlla na tontu ni Mame Boye Diao koñ c'est profondeur et instruit lu mu wax en tout cas lu mu ci manti doon règlement contentieux bu lotissement bu njaareem limaamu laay la ma doon ñaxtu keroog loolu la journal bi génn waaw moom li doon ñaxtu keroog ah ci wàllum suuf si en tout cas Mame Boye Diao tontu na leen euh, ñu euh, jeexale euh, dépêche en tout cas lu mu ci manti doon jàpp na tey Mansour Diop nekk fi nekkoon ma yëngal ko ci Mamadou ma yëngal ko ci Mamadou Lamine Massali en tout cas président Macky ñëw le 27 octobre ah Birahim siggi na Mamadou Lamine Massaly nee na président Macky Sall xam naa ne da nga namm 2007 da nga namm 2011 ndax li ma la teeroo woon ba léegi kenn mënu koo fàtte mbooloo bi ma andi woon léegi bi boo nga xam ne le 27 octobre bii dinañ la teeru noo xam ne masul am ndax tapis rouge lay laal Thiès gi yëpp. place de France R100 ak fu mu manti doon Thiès noo xaw ma ouest sud bu ci nekk bu fekkee am na nee na foofu lay jël duy kaay nit ba mu fees def tapis rouge parce <laughs> que naka teeru président Macky Sall bàyyiwul dara nee na enveloppe bu dix milliards la génne dix millions dix millions dama juum dama juum dindi naa benn zéro bi dix millions la génne <laughs> defar ay t-shirt ak lu mu manti doon ngir teeru dix millions ci mobilisation moom ngir mobiliser président Macky Sall. dix millions ci mobilisation du tous nee na 10 millions daal la génne fës kii ne teeru président Macky Sall nee na dootoo ko defati mbooloo mi la nar a teeru foofu sa Thiès nee na président Macky Sall. bu weetu 50 personnes. dootoo ko defati ay ca yaas. Ah. ñu jàll ci wala jéena. maam jeex na nañ dem. 8h02 ah. quand même damay ah. damay xaabaabal. waaw waxal si Odia vite fait rek. Odia <clears throat> mi ngi nii candidature yi ci biir Benno Bokk Yaakaar gis nga. Euh, euh, euh, kii kii kii nu mu tudd ci PIT. moo taxaw ci buntu bi en tout cas dafa def ay proposition ci ay candidats yu nga xam ne mën nañ nekk biir ay candidats yu nga xam ne taxaw nañu. Amadou Amadou Ba mi ngi nii ba tey euh, mën na nekk candidat euh, Samba euh, Samba si. Samba si sama mbokkum sama mbokkum Tëngéej PIT. Samba si moo nekk nii moom nee na candidat daa voilà Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye du jàll mais ñii ñoom nee ñu présent Macky sàll la ñu bëgg andi ko teg nee na bii mooy profil bu leen bu leen saf moom nee na bii dafa périmé président Macky Sall mii dafa périmé bii moom. nañ seet leneen moom nag mu ne leen mais xool leen vitrine bi nii yeneen kanam a ngi fi yoo xam ne nii yu bees tàkk yu mën nekk président mais ñoom kanamu Macky Sall moo leen saf donc nag foofu la Odia génne maanaam candidature 2024 ak nag waa Benno Bokk Yaakaar coow li nga xam ne moo si am ñii ne déet ñii ne waaw euh, moom mu euh, daal di andi caricature bi defee ko nii moom Odia a Diakité ni muy defee actualité bi saa su ne Yacine. trafic na wàññi ba nopp yi noppi. Hmm? kii na wàññi noppi président ah, en tout cas xam leen de téeméer yeet googu war nañ ko appliqué de. <laughs> ku njaaloo ay nañu jàll. <laughs> nañ dem. yaa <laughs> li ci gën a fës si biir jotaayu xibaar ah donc. guddi jàppale ne kon euh, si euh, locaux yu brigade gendarmerie bu Sébikotane ñooñee moo di impacté yu deuxième projet bu euh, TER manifestation lañ doon amal ñu teg leen loxo ñooñee nag jàppale ne kon seen i parcelle redoupe TER bi ci boppam moo taxoon ñu foqati ko sa ñoom seen koppar la sàkk ñu jox leen ko maanaam ndàmpaay la te ba fii France daal di xëddeen mi lañ sa joxoñ baaraam sa caaro sur Mer moom jàppale ne kon équipe municipale ba fu mu nekk nii ay jéego la ñuy def jëm ci wàllum yoon ndax nag tëj tëb usine seen chim ñu jële ko ca gox ba loolu la ñu bëgg ndax nag maire ba dafa jàpp ne kon mbir yi ak louche nga sa lii tax kër ga ñu tëj ko te ba léegi mënu faa jógee grève 48 heures la ñu woote ëllëg ak nag euh, euh, euh, talaata ak ba lay doon 48 heures ña ko woote moo di alliance ànd gësëm ak l'intersyndicale bi ëmb ko ñu liggéey ci bokki moomeel yi maanaam collectivité locale ñaar ñooñu dañu booloo joxante loxo xàccindoo ngir dóorandoo jàkkaarloo nguurug Sénégal seen boolu jàmbat lu fees del dinañ ci dikkaat si bii la jotaay xibaar tàggat yaram Pape Mante bu yéene kaay xëy fësal ak Mantulaay Cubunde faram fàcce gi ñu ànd seex Mamadou Fafa ndax Birame Ndiaye ji Touré